bu dee Ismaïla saar moom bëggul woon jógee ca olympique bu Marseille waaye njiitu club boobe rawatina ki di tàggat moo bëgg ñu jaay ko ndax kontewul ci moom moom moomee di Ismaïla saar jamono jii nag ca réewu Angleterre club yi ko fay bàyyi xel bari nañu lool rawatina Crystal Palace Crystal Palace bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal ko contrat moom Ismaïla saar kon nañu ko ñaanal balaa yàgg ay mbiram yemb mu dem ca Premier League ba doxal keneen ki moo di Lamine kamara Lamine kamara moomee këlëbam di Metz dañoo wàcc bëgg-bëgg bi këlëb boobee am moo di jaay ko te lool it moo gën ci doomu Sénégal bi kon nañu ko ñaanal jamono ji këlëb yi koy bàyyi xel bari nañu lool bokk na ca réewu almaañ Angleterre ba ca France googee France moom club bu ñu naan AS Monaco dañoo bëgg lool Lamine Camara kon moom tamit nañu ko ñaanal ay mbiram yemb journal bi tamit fàttewul waa Tëngéej football club kii wax nag moo di Cheikh Sarr moom défenseur la ca club boobee mi ngi wax nag ci Ligue des champions bi nga xam ne dénduk Afrique jii lañu ko jeg leel xam ngeen ne Tëngéej football club bu lépp jaaree ci yoon war naa dem teewal Sénégal waaye faw mu jaar ci tour préliminaire yi maanaam segg njëkk gi bëgg nag moo bi ñu jaar ci segg gu njëkk gi mën a bokk ci phase de groupe yi loole bu amee bëgg-bëgg bi mu am moo di ànd ak waa Tëngéej football club bind taarix ci ligue des champions africaine bi loolee la xamle moom Cheikh Gueye nee na noppi na ngir doxal ci ligue des champions bi. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Ismaïla Sarr la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag club bu ñu naan Crystal Palace nekk ci réewu Angleterre dañu ko bëgg lool te fawuñu ci ay mbiram loolee li koy firndeel sax moo di club boobe def nañu offre ngir jëlee ko ca Olympique bu Marseille muy Crystal Palace waaye Marseille dañu ko rejeté maanaam dañoo gantal xamal waa Crystal Palace ne leen su ngeen bëggee doomu Sénégal bi yokku leen seen loxo ñu jaay leen ko ndax dañu ko bëgg a jaay kon nañu ko ñaanal moom Ismaïla Sarr balaa yàgg ay mbiram yemb mu mën a waajal saison bi dem ci clubam bu bees doxal journal bi tamit ñëw na ci Habibou jàlloo moom nag mën naa am mu jugee ci réewu Arabie Saoudite delluwaat Europe rawatina France gi ko ñëpp xamee ca Strasbourg waaye loolee nag bu amee soit sportif lay doon du doon choix financière maanaam du doon tànnee fub xaalis tànnee fub bëgg-bëgg lay doon ndax réewu Arabie Saoudite club ba mu nekk di Al Shabab li ñu koy fay waa Strasbourg mënuñu ko koo fay maanaam ca Arabie Saoudite la xaalis ëppee kon su fa jugee ñëw ca France loolee du doon tànnee fu xaalis tànnee fu sportif lay doon kon nañu ko ñaanal bëgg-bëggam boobee moom Habibou Diallo mu sotti mu delluwaat ca Strasbourg ndax footballu Sénégal am nañu lool yaakaar ci moom ñu jugee Sénégal wutal wutali Portugal fekk fa oxogo waa Porto rawatina ñaari gone yi toj seenu mercato jamono ji la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa muy Francesco Conceição ak Galeno bu dee Francesco Conceição moom doomu Portugal la ailier bu mën li muy def la Galeno moom doomu Brésil la moom it ailier bu mën li muy def la ñoom ñaar ñii nag jamono ji ñooy yëngal mercato wu Porto li ko waral moo di dafa am club yu leen bëgg a jëlee ca Porto googee bu dee Juve moom ñaari gone yépp ñëpp la bëgg muy Francesco Conceição ak Galeno Juve ànd ak Thiago Motta bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal leen contrat ñoom ñaar ñëpp waaye Francesco Conceição mii moom Juve da koo bëgg RB Leipzig bëgg ko kon nag mën naa am ñu jugee ca Porto ndax jamono jii ñoo yëngal mercato wu Porto journal bi tamit ñëw na ci Victor Gyökeres moom nag mën naa am mu dem ca Barcelone waaye nag du doon saison bii ñu dëgmal li ko waral moo di waa Barcelone dañuy waajal mi ngi magal li ñu bëgg ñoom waa Barcelone moo di ku ko wuutu foofee te gone gii di doomu Suède saison bi ñu génn mu doxal ca Sporting jël meilleur buteur foofee ca Liga NOS ba waa Barcelone a ngi koy bàyyi xel bu baax su fekkee saison bi ñu dëgmal football na ko ca Sporting ba mu jeex kenn jëleewu ko fa dàquñu jëlee ko foofe indi ko ci seenu club mu wuutu fa Robert Lewandowski ndax jamono ji mi ngi magal te Victor Gyökeres attaquant bu mag la ñu jugee Portugal Angleterre fekk fa Star Sport Eric Ten Hag mi tàggat mën Manchester United la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag waxut dañuy wax ci club bi muy tàggat kiy wax nag fa la nekk muy daan Ashworth moom jamono ji moom mooy directeur mën sa Manchester United club boobee nag jamono jii dañu ko raxasaat rawatina staff technique bi maanaam ñi nekkoon ci suuf di doxal liggéey bi daanaka ñépp lañu raxas moom mii di daan aswartu nag bokk na ci gan yi mooy wax bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la club boobee di mën sa Manchester United am ci saison bii ñu dëgmal ndax nee na club bi jamono jii dafa nekk ci dans le besoin maanaam dañoo soxla te jamono jii nag luy jot jot na maanaam bët séb bi na ku biddanti rek gaa ñi mën nañu laa raw li bi Manchester United bi ñu miinoon xam ko mu dellu au niveau national ak international li ñu bëgg moo di di doxal ndax bu dee ca Premier League boobee gëj nañu fa doxal ndax gëj nañu koo jël ci atum 2013 ak tey jii Manchester United jëlul Premier League bu dee Ligue des Champions atum 2008 la ñu ko gëjoon jël li mu bëgg nag moo di doxal liggéey bi équipe bi di dox di am ay ndam di gañe ay coupe Manchester United bi ñu miinoon ay jamono ñu gisaat ko loole la daan Ashworth xamle journal bi tamit ñëw na ci Amadou Onana moom jugee na officiellement ca Everton xaatim contrat ca Aston Villa kon nag waa Aston Villa ànd ak Unai Emery foofu ñu foluwuñu li ñu bëgg moo di tabax équipe bu mag doxal ci Premier League bi waaye Ligue des Champions bi ñu jëmit ñu doxal fa sournal bi tamit ñëw na ci AEC moom sóoru Crystal Palace la waaye mën naa am mu jugee fa dem ci Manchester City bu Pep Guardiola doxal ndax waa mën Manchester City dañu ko bëgg lool waaye nag prix bi ko bàyyi foofee taxu kaa yomb ndax lu mu gàtt-gàtt waa Crystal Palace bëgg nañu ca soixante quinze millions d'euros jamono ji waa Manchester City ngi càmbar ay mbiram muy AEC nekk doomu Angleterre bu mën li muy def ñu juge Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve rawatina seen gone gi ñu naan suulee la journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag waay Juve ngi koy artu ndax Juve bëgg-bëgg bi ñu am moo di téqalikoo ak doomu Argentine bi jamono ji nag ñaari club ñoo nekk ci ay mbiram muy AS Roma nekk ci réewu Italie ak Crystal Palace nekk ci réewu Angleterre bu dee AS Roma moom def nañu offre bu baax offre boobe mi ngi toll ci vingt huit millions d'euros kon nag balaa yàgg soo moytuwul gone gi ay mbiram lépp mën naa yemb club bu ñu naan West nag gaañaa ngi doon wax ne dañoo bëgg suule waaye suule moomee waa West Ham mosuñu koo bëgg mosuñoo wax it ci ay mbiram ñaari club ñoo koy xëccoo muy Crystal Palace ak AS Roma bu dee AS Roma moom def nañu offre kon mën naa am balaa yàgg ay mbiram yemb moom suule nekk doomu Argentine di joueur Juve jamono jii journal bi tamit ñëw na ci waa Inter Inter googee ànd ak gan gi di Teremi démb dañ doon amal match amical club bi ñu doon jàkkaar nag mi ngi ci série C bu itali maanaam troisième division bu itali Inter moo am ndam ñaari bal ci benn bu dee Teremi dafa départ titulaire doxal dugal bu dee beneen gan gii di Zielinski moom it football na minitam yu njëkk ak waa Inter Inter ànd ak Inzaghi am ndam lu ama am solo ñaari bal ci benn Inter googee nag noppeeguñu ci seenu mercato ndax dañoo bëgg doomu France bi nekk ca nant gone ji mi ngi tudd Zeze dix-neuf ans képp la am te li muy def mën na ko lool waa Inter dañu ko bëgg te fawuñu ci ay mbiram ñu jógee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Youssouf Fofana la surnal bi fësal ca wu njëkk wa journal bi cardinal lay waxal cardinal indil ñu Fofana fii ci sunub club mu doxal jamono ji doomu France la ma nga ca AS Monaco di doxal jamono ji doomu France bi ak AC Milan juboo nañu ci lépp salaire bi mu fay am ak contrat bi mu fay xaatim juboo nañu ci lépp fi mbir mi desee moo di ci diggante ñaari club yi te fan yii di ñëw réunion war naa am ci diggante AC Milan bi bëgg gone gi ak AS ko bi ko moom waa AC Milan nag bëgg-bëgg bi ñu am moo di mbiru Fofana bu matee ñu songu mbiru doomu Serbi bii nekkub défenseur tudd Pavlovic gone gi ma ngay football ci réewu autrice club bu ñu naan Salzburg défenseur bu mën li muy def la waa AC Milan dañu ko bëgg lool bu dee waa naataango mota moom jamono ji Karim Adeyemi moo leen tee nelaw gone Dortmund gi waa Juve li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat seen gone gi tudd suule la ñu bëgg a jaay suñu ko jaayee nag xaalis ba ñu cay am dàq ñu def ko ci Karim Adeyemi mu jógee ca Bundesliga ba ñëw ci Serie A bi doxal journal bi tamit ñëw na ci Victor Osimhen aussi Osimhen moomee nag waa Napoli dañu ko tëj prison loole nag du samay kàddu kàddu waa pari la ndax Paris dañoo bëgg gone gi lool waaye xaalis bi ci Napoli di laaj dafa seer lool loole moo tax waa pari ne jamono ji Victor Osimhen prisonnier la ndax waa Napoli dañu koo tëj ñoom dafa mel ni bëgguñoo jaay moo tax ñu cay laaj xaalis bu jégg dayoo lool. ñu jógee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay sportif yi yeewoo ci réewu Espagne tey waajal jeu olympique bi le journal bi fësal ca wu njëkk waaye journal bi fàttewul waa Atlético de Madrid ñoom nag daanaka matal nañu lépp ngir attaquant wu Girona bi tudd doof bi jógee ca Girona dem ci seenub club club xaatim fa te jamono ji nag mbir maa ngi sori lool balaa yàgg bu dara soppeekuwul lépp mën naa yemb meilleur buteuru liga bi saison bi ñu génn dem ca Atlético de Madrid jàppale Diego Simeone journal bi tamit fàttewul waa Real de Madrid ñoom nag suba incha allah aje dina am maanaam tàggatoo ci diggante Nacho Fernandez ak waa Real de Madrid loolee ñoo ngi ko war a amalee ca Valdebebas foofee la waa Real de Madrid di entraîner fa la ñu bëgg a dem tàggatoo ak Nacho maanaam defal ko aje ñu jugee marka yéene jël AS yéene kay Rudy le journal bi fësal ca wu njëkk wa kii nag ci basket lay yëngu ci club bu ñu naan Real de Madrid la nekk waaye surnal bi fàttewul football bi rawatina club boobee di Real de Madrid les cinq magnifiques Real de Madrid am nañu juróomi gone yu doy waar te mën a dugal lool juróom bokk na ci Mbappé Vinicius Rodrigo Brahim Diaz ba ca Endrick ñoom juróom ñooñee saison bii di ñëw incha allah ci Real de Madrid la ñuy football te dañoo mën a dugal lool juróom ñooñee ma lim saison bii ñu génn li ñu dugal ñoom ñëpp ci ay bit bu ñu ko boolee mat na sant huit bit maanaam téeméer ak juróom-ñetti bit kon saison bii di ñëw waa Real de Madrid am nañu ay dugalkat loolee la journal bii di AS yéene kay xamle bu dee waa Atlético de Madrid moom daanaka matal nañu mbiru doof bi ngir mu jógee ca Girona dem ci seenub club doxal waaye du ñu ca yem li ñu bëgg moo di wut beneen neuf boo xam ne dina ko mën a jàppale ca attaque ba ñu ànd doxal surnaal bi tamit ñëw na ci Hansi Flick moom mooy tàggat Barcelone wax na ci classico yi koy xaar ci saison bi ñu dëgmal incha allah nee na ñun ak Madrid maanaam Real de Madrid ñaari match la ñu war a jàkkaarloo muy aller agretour retour match yooyu nag dañu koy waajal kon jarul ñuy parax-paraxi dañuy matal liggéey bi waajal match yooyee jàkkaarloo ak Real de Madrid loolee la xamle moom Hansi ñu jugee Madrid wëtali Barcelone fekk fa esport antifiling mi tàggat Barcelone la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb nag journal bii di esport da dalal ñu séq waxtaan bu yaatu lool bokk na ci kàddu yi mu njëkk a moom antifiling moo di nu avons une équipe au top ñun waa Barcelone am nañu équipe bu mag équipe bu nekk ca kaw waaye nee na football moom yar ak teggin da caa baax lool nee na yar ak teggin nag foo nekk baax na ca waaye rawatina ci football bi kon li ma bëgg moo di gone yi am yar am teggin wax na tamit ci Robert Lewandowski nee na Robert Lewandowski nag attaquant bu doy waar la te dafa xarañ lool ci kanamu kàng yi nee na Robert Lewandowski soxlawul sax di am ay occasion yu bari saa su amee benn mën na koo def ci kër gi ndax dafa xarañ lool moom Robert Lewandowski wax na tamit ci match yi koy xaar soxal classico nee na classico bi de ñaari match la dañu koy waajal ak dal duñu parax paraxee dañuy waajal jàkkaarloo ak waa Real de Madrid defante ak ñoom wax na tamit ci ni mu bëgg a doxalee nee na moom foofee ca Barcelone bëgg-bëgg bi mu am moo di di téye bal bi lu bari am Diop indi Ndiaye maanaam possession bi mu ëpp ko ki mu mën di jàkkaarlool loolee la xamle moom mii di Hansi Flick waaye tamit wax na nee na jamono ji nag Europe googee équipe yu baax a fa nekk match boo am day métti rawatina fii ci Espagne jàpp naa ne match bu ma am day métti loolee la xamle moom Hansi Flick journal bi fàttewul Ronald Araujo Ronald Araujo nag opéré nañu ko ba noppi ca Finlande la demoon opération bi réussir na waaye dina toog ñeenti weer maanaam quatre mois du dugg ci terrain football ca réewam di Uruguay la demoon jëlee fa bu mitti ca cuisse droite ba maanaam ca luppum ndijoor ba la am blessure bu metti opéré nañu ko nag ba noppi nañu ko ñaanal wér gi yaramam jëm kanam ñu jugee spoor jël Mundo Deportivo Hansi Flick le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa style Flick Flick nag teg na ay ndëgg sërëxam ak ni mu bëgg a doxalee foofee ca Barcelone yëkkati na nag ay kàddu wax ay bëgg-bëggam nee na football de qualité la bëgg ca Barcelone ak concentration bu mat sëkk maanaam gone yi muy am am fulla mën li ñuy def waaye boole ca ak fulla ju mat sëkk nag ci première minute bi ba fa match bi di jeexee képp ku mu dugal ci match li mu bëgg moo di nga concentré wu maanaam nga jëmbat fulla doxal ca match boobee ndax futbal loolee la laaj concentration qualité intensité maanaam bëgg-bëgg bu mat sëkk football loole la laaj waaye nee na pression dafa bokk ci football équipe bi ngay taseeg faaw nga teg ko pressing ba mu xam ne moom mii am na loo bëgg waaye nee na waa Barcelone nañu ko indil benn excentre ak benn milieu défensif loole la bëgg moom Hansi jamono ji nag waa Barcelone ngi liggéey ci mbir moomee journal bi tamit ñëw na ci Ilkay Gundogan moom nag mën naa am mu dem ci réewu Qatar